yéen a ngi déglu allo dakar point com
yow nag Ok.
ka yow nag wokk dañ lay présenter en tant que non da nga bokk ci Dakar Banjul Round Trip
dëgg la émission bu nekk yaa ngi ci temps yee nag yaram wi sutante nga ne Matata Mariam temps yi yëpp ma yaram dafa sutante ma ne la bés boo tamee rek nga dellu si waat rajo bi sa rajo la nga ne ma man kat li ñëpp di wax li li li li lëmbee àddina bi moo ma jàpp ma ne la nga ne mu ma nga ne ma jàpp na ma ñaari yoon ma ne ko ah lëmbe loolu suuse la amoo di ba mu ne jàpp na ko ñaari yoon ma ne ko kon de loolu sujet la loolu moom mun nañ koo waxtaanee nga wax ñu Dëgg la.
foo aw garab yi nga jël précaution yi ni nga doon def ak say njaboot ni nga doon def ak fi ngay liggéeyee loolu la tey vraiment avec ta simplicité nga ne ma kat man lii corona bi jàpp na ma ñaari yoon ndax am na ñoo xam ne corona bi dañ koy dañ ko jàppe comme gàcce feebar kenn du ko Mhm.
nëbb feebar Mhm.
du gàcce ku sañoon Mhm.
kenn du feebar ku sañoon tamit Mhm.
kenn du dee mais nag Mhm.
comme que ay jaam lañu te yàlla lu mu lu mu soob ci jaamam loolu la jaamam di am mais yow nga am courage ñëw ne ma tey dinaa waxtaan ak nit ñi ci affaire coronavirus ñu laaj la wak naka nga survive ñaari yoon ci feebar bu métti bi ak naka nga ko dundee sa famille ak sa liggéeyukaay loolu lañ bëggoon nga waxtaan ñu ko fii ci Dakar Banjul allo Dakar waaw alhamdulilah euh, ñu ngi xanaa sant yàlla bu- ñaari yoon rek wax alhamdulilah sant ko ñetti yoon wax sant yàlla sant yàlla sant yàlla ba mu bari parce que euh, tata Mariam ma- dañuy wax ne nit mënuloo nekk nit ku baax mukk bu fekkee ne li nga énee sa bopp éneewuloo ko nit ñi te bu fekkee ne yow da nga fiil ne yow wérgu yaram yow rek ci yow la jekka faalewuloo keneen kon yow dese ngaa sax doon jullit dese ngaa doon sax nit nit ku baax boobu Euh, looloo waral man ma fiil ne nit ñi war nañoo waxtaan ak ñoom lan mooy coronavirus bi ak lan moo tax ñu war koo gën a bàyyi xel Euh, soo fàttale ko su ma njëkk a njëkk a ñëw euh, euh, Dakar Banjul live ba nga ma njëkkee kool dafa tombé ma feebaroon doon saxaat yàgg na yaa ngi ko fàttale D'accord.
ma ne Waaw.
ma ne la dama feebar maa ngi woon Texas doon liggéey foofu nekk ci oil field bi waaye saxaat bi yàgg ma commencé di jënd nag garab yi nekk behind the counter yëpp naan ko waaye ma réalise ne nekkul di help dama dee saxat di saxat mujjee bi may yëy jinjar su ma benn xarit na ma jëlal jinjar di ko yëy soo ko yëyee daf la dee dimbale ci saxat si su ma yëyee jinjar mu bàyyi su ma tëddee ba boori three o'clock saxat saa maa ee ma dogaat si jinjar yëy ko mun a nelaw ma nekk ak moom loolu over a month mujjee bi ma réalise ne maa ngeen naan ndox constantly keesi ndox bi ma daan jënd nga xam ne daf ma daan jóobu a week ma mujjee di ko naan in three four hours ma ne man am na lu ma jote man li ma fogoon sax mooy ndax du dama am diabetes waaye ma continuer di liggéey maa ngi continuer di liggéey ba benn bés ma jékki-jékki rek eh, Texas keroog am nañ over hundred degrees man ma commencé di liw ci suma tron bi ma ne non lii du neen xaaral ma jóg noonu laa dawalee dem ci nearest clinique bi ma ne gars yi man dama feebar expliqué naa leen ne leen suma purux mi daf dee mel ni am na lu faa dox ma yëg suma faar yi di tàng jir mel ni safaraa ci nekk may am diarrhée ba pare di seben all the time constantly di tuur ndox ma ne leen loolu nag jaaxal na ma so ba ma ñëwee ñu ñu defal ma swab ci suma bakken bi def ko ci suma purux bi ma toog xaar tuuti docteur bi ñëw ne ma dañ gis virus ci sa yaram bi waaye mus xamuñ ban virus la because musuñ koo gis so mu laaj ma ne ma ndax da nga tukki woon out of the country recently ma ne ko déedéet dew ma fenn man géej naa tukki over year mu ne ma wel virus bii de ñun musuñ koo gis waaye liñ mun a def rek mooy ñu jox la antibiotics nga dem naan ko ma jël antibiotics bi naan ko five days mu gën a garaaw suma jabar ne ma lii is a red flag antibiotics mënuloo koo naan ak virus ba pare muy gën a garaaw am na lu rong ma nekk foofu ba benn bés xaw ma fu ma nekk ma mel ni nekkatuma sax si àddina bi ma kool suma benn xarit ne ko booy man dama feebar dëgg dëgg feebar naa te jaaxle naa mu ne ma xaaral ma yónni suma doom bi mu ñëw jël si la mu dawalee Fort Worth ñëw ba San Antonio Texas yóbbu four hours yóbbuwuma këram ba ma demee jabaram defaral ma suuf bu tàng jër def ci jinjar waaye ma réalise ne bi ma ko naanee rek su ma nokki gi tane na parce que dama daan nokki di struggle di nokki su ma nokki dama dee struggle waaye bi ma naanee loolu ma réalise ne affaire yi xaw na tane ma ne ko defaralaat ma loolu li nga ma defaloon parce que gis naa ne maa ngi am some relief ñu teg ci ñaari fan ñetti fan ma gis waa kër gi commencé di feebar ma ne waaw man moom si mënuma understand lu xew jabaram feebar yaayam doomam bu ndaw bi am two years moom ci boppam suma xarit bi feebar sim symptôme si ma am moo ñu commencé di ko am ba ma tanee tuuti ma ne leen xaar leen ma ñibbi ma jënd ticket ñëw moo tax toujours dama dee guilt dama dee ne man ñaata nit laa wàlla feebar bi te yëguma ko ñaata because boobu xaw ma lii lan la amut so kenn solut masque kenn xamagut lii lan la te ñu ngee dugalante nit ñi di dem maa ngi saxaat everywhere so sometimes su ma toogee xalaat loolu sax dama dee dama dee am that guilty consent ne yal na ma yàlla dimbale parce que xaw ma sax ndax am na ñoo xam ne am nañ corona bi dee ta yàlla na bu ne sax si man lañ ko amee I don't know loolu yëpp daf ma dee daf ma dee sonal sometimes ba ma ñibsee si kër gi tam ba tey xaw ma lan la ma waaye daal bi ma ñëwee xam naa ne maa ngi saxaat soo ma jël distance tuuti ak suma doom yi di naan nekk man kenn suma kaas ak kuddoog lu nekk ma beru ñu teg ci three days rek. Texas call ma about a week about a week ba ma xaw a tane boobu tane naa sax nag wax dëgg ba saxaateeg yoon bàyyi jël na a week to a two weeks Texas call ma docteur bi ne ma how you feeling now naka nga def ma ne ko tane naa bu baax mu ne ma dama bëgg nga delluwaat ci clinique bi nga dem def covid test ma ne ko waay mu ne ma because sa test yi dañ ko seetaat baak after ñu gis ne da nga positive on on coronavirus ma ne ko man mu ne ma yes li nga amoon covid la so dañ bugg nga delluwaat ma mel ni nag ku bugg a dof man si diggante bi waaye boobu fekk tane naa ba pare so ma dem test mu négatif ma ñëw ne ko négatif na mu ne ma loo doon use ma ne ko wel dama daan naan ndox mu tàng ak ndox mu bari jinjar dama ko daan baxal boole ko limon ak laaj di ci def lem loolu moom dama ko daan naan every two hours nekkul ne ni tama ko wax sax it just come to my mind na xam ne Africa nit ñi buñ feebaraan li ci ëppa sàkk ngay saxaat dinañ jël limon def ci lem ak laaj ak yooyu jox la nga naan so automatically ma nit ma ne xanaa su ma defee loolu dina ma dimbale and that work bi ma ko waxee docteur bi ci boppam daf ma ne obviously that should work because limon bi dafa am lot of vitamin C ba pare mu ne ma mu ne ma garlic bi ci boppam antibiotique la mu ne ma yow da nga kiyoo sa bopp naturally and you don't even know it ma ne ko wel dama daan gis suma maam di ko def ma ne tamit ma commencé di ko def waaye boobu ma gis ne tane naa ci affaire yi an alhamdulilah ma yëg ne wér naa ma gis benn jamekan moom itamit defar benn vidéo si affaire yi jel bi di wax ne jel bi baax na torop waaye moom dafa réalise ne ndoxi xorom bi moo ko gën parce que ndoxi xorom dafa am préservatifs soo seetloo Gambie ak Sénégal mag ñi buñ amaan géej wala dara bañ mu yàqu dañ ci sànni xorom bu bari weer ko su ko defee sax yi duñ ci duga dara duñ ci duga parce que xorom préservatif la soo gisee nit bu gaañoo yenn gaañu yu bañ sax mu am septique dañuy jël ndox a xorom raxasee ko ko pour mu rey virus bi soo xorom te xorom bi mun naa yàgg ci sa loxo tey boo raxasee woon ndoxa xorom fii ba ngoon soo maree sa loxo bi di nga fiil ne xorom bang fa ba tey te jël bi nag after a while daf dee wàññeeku daf dee génna soo mu xorom bi moo gën a am effective ci virus coronavirus bi soo man moom boolewuma ci wax ca géej ga laa dem rek dubi ay bidon indi ci kër gi su ma rak xale yeeg yëpp ma amee benn suma moto bi su ma wàccee di raxasu di jël di jël suma suma masque di ko sol période boobu yëpp nag àddina bi ñëpp a ngi jaaxle ñu ngi naan corona baa ngee rey waaye kenn amagulul ko garab ñu ngi naan toog leen seen kër yi man defaroon naa si vidéo waxa nit ñi ne nañ leen toog seen kër yi mooy saafara si but ñun di biggest problème biñ gënoon a am ñun mooy african si ñun gëmuñ ko woon raga- rawatina Gambie ak Sénégal ñun foogoon nañ ne li pol politique tubaab yi la ma ne leen politique boo xam ne de bër bu set mu rey nit ñu ngeen gis ko ñu watat yóbbu man loolu su ngeen ko fogee politique kon lan la laa jural what do you gain out of it waaye teramarem li nga xam ne man moom a gënoon a ñor fi mu nekk ci jamono juñ toll nii mooy vaccine bi man bi mu ñëwee es man su ma fa ñemeñu ma ko woon man parce que dama ne vaccine bi dafa gaaw li mu waroon a jël jëlu ko ma dégg ay ay docteurs yoo xam ne ñu ngi naan bu leen ko jël ñii naan jël leen ko suma xarit yu bari dem jël ko man ba tey nangu ma ko woon a jël waaye li change suma maayin mooy suma waa ji ma àndal mu ngi nii toog suma boor maa moom ñoo dee àndal léeg-léeg di liggéey moom moo ma wàlla virus bi corona bi bu yaagut nii moom moo ma ko wàlla waaye seen waa kër ñi ngi jël vaccine bi ñëpp kenn amu ko man mi nga xam ne jëluma vaccine bi benn few hours yi mu ama man rek joxaat na ma ko tabaski gi bi moo jot nii xaw ma ci lu ma nekk tuuti ma ñibbi yow man xiyaam su ma tëddee guddi du ma mën a nokki dafa mel ni dafa am ku jonkoon suma kaw di dama suma yax yi suma faar yi dafa tànga tànga tànga tànga mel ni dañ fi dugal xaalis safara dama dee bugg a xotti suma faar yi rek métti bi mu dee métti kenn mënu la koo nootale ma ne lii moo tax bu jëlee mag bu jàppee mag mu la dee rey parce que nim laa def neexut a survive sa suma purux mi daf daan mel ni dañ téye paaka di ko xotti daf daan tàng jir wow koŋ docteur si nag ne ma del naan lot of water parce que bi ma demee bi ma demee lopitaan check three days later si laa soog a dem lopitaan pour seet xam nga ñun rek moom ñun ñeme ñuñ lopitaan ñun Gambie ak Sénégal ji ji lañ am li suma nijaay day wax ne suma nijaay day wax ne lopitaan mu ne Afrique seen docteur yi mun nañ mun nañoo faj problème bi mooy nit ku dee lañ leen di indil da ngaa toog ci kër gi bañ watat la kii téye caamoñ bi kii téye ndeyjoor bi ñu watat soog a yóbbu su ko defee ñu ne docteur yi mënul dara fekk ku dee lañ ko indil ba pare waaw ñun ñeme ñuñ lopitaan di time pour ñu dem ci lopitaan on time duñ ko dee def waaye dama ko dooree ci suma fa three days maa ngi tëdd ci kër gi suma jabar force ma ne ma demal nga seet lii lan la ma demaat ceeg maag suma doom yi parce que looloo tax ma gën a dem dama toog ma gis suma ñaari doom yi commencé di jël am same symptoms ma yóbbu leen bi ñu demee ñoom ñëpp ñu positif ñu ne ma da nga am coronavirus ñu quarantaine ñu ci kër gi suma jabar ne ma gis nga li nga koos lii soo teeloon a dem mënoon ngaa protect xale yi waaye yaa ngi toog ci kër gi ragal lopitaan gis nga lim far jur bi ma fa jógee nag dafa am lu ma conclude ma ne vaccine bi nag man maa koo defal si man si suma bopp man maa koo defal si promotion bu bu bu kenn dul def parce que ñaara tax bu fekkee ne tubaab bi ñu ne tubaab yi dañ defar coronavirus pour ku ko jël bul mun a jur wala ku ko jël sa ngóora dina dem wala ku ko jël doo mun a amati doom wala am na ñu wax ne dafa yàq sa DNA nga jur góor jigéen yooyu yëpp dégg naa ko ci vaccine bi waaye man dafa am rek fu ma fu ma daanelee ma ne vaccine bi ak lépp lu mu la mun a def daf la fee bàyyi ngay dunda bu mun la koo def wala vaccine bi moom lépp lu mu la mun a def moom daf laa bàyyi ci àddina ngay dunda pour mu mun la ko def ma ne leen maga magam da ca gannaaw di ñëw corona moom du la may chance moom daf laa rey moom yóbbu la léegi nag ma ne ñim coronavirus ñim rey tey ñu dem ci baameel yi tey ku leen waxoon ne del si waatal àddina jël va corona jël vaccine bi te bul mun a am doom ñu ne la bugga naa koo ci waxoon ne dellu waatal àddina tey nga dunda waaye doomi góor jigéen ngaa jur wala sa DNA dafa jaxasoo wala doo doon góor a daf laa ne waaye luy ngóor a naa dunda te dun bañ a doon góor moom a ko gënal so moom man man dama réela dam man loolu laa finalise dama ne même su fekkee ne li ñoo wax dëgg la even though loolu yëpp ay caaxaan la waaye dama ne même bu fekkee ne loolu dëgg la ma dunda ma dunda te doon te ñàkk ngóora moo ma gënal dee ak ngóora waaye waaye ku yóbbaale ngóora ci baameel lum laa njëriñ problème bi mooy loo foofay wax ji na nit ñi bàyyi caaxaan gi te dem jëli vaccine si man dama leen ne ak lum la mun di def gannaaw daf la ko def bàyyi la si àddina nga dunda wallahi corona moom bu la fa fekkee you might not have another chance man dunda naa force one bi am na guddi goo xam ne dama fatta mënumaa nokki may struggle mënumaa nokki eewu naa mënatumaa nokki ma commencé di tudde yàlla di ñaan di ñaan di ñaan loolu moom dama jékki-jékki rek mu mel ni dafa am ku ma xojoon ci ndox rek bàyyi ma ma commencé di noot loolu bu st- bu stoputoon loolu su continuer woon another five minutes rek dañoo ñëw fekk ma dee ci kaw lal am na guddi koo xam ne ci suma feebar bi mujjee ni tëta ah ah
Vas-y, vas-y, demain, Allez.
demain, demain.
ma ne euh, tobaski gi mu- suma euh, seconde vague euh, corona bi ma am nii walla am na guddi goo xam ne fogoon naa ne dañoo eew fekk ma ma dee man moom yàlla mi ma tiim xam na ko fogoon naa ne guddi tey bi moom non du ma ko du ma ko rëcca because li ma doon yëg man mii xam naa ne lii jekku na ma tey already win na ma I know it parce que mënatumaa nokki suma biir baa ngee daw suma suma fii temperature bi was just uh, high rocket suma bët yaa ngi lënde mënatumaa gis dara may miir le- lu ma lekk génne ko ma ne waaw tey moom xam naa ne guddi tey moom tey la ma dem beru tëdda ci suuf man kenn suma néeg ma ne is okay suma jabar eewu na boori fajar di ma yurndu ni di seet ndax am still alive ma di ko tooñ ne ko deewaguma ma ngi fi muy ree waaye yàlla xam na ne foguma woon ne naa ko miig that night parce que Dëgg la.
lim laa def lim laa def bu la jàppee daf kenn mënu la koo nettali façon yi façon yi peen boobu noonu man mënumaa xam lan la gi nga te ma te daa ma dem dafa mel ni nit a jël xaalis safara rek rof ko ci safaar yi rek na la banque ko tàngoor bi moo génnee tàngoor bi moo génnee it mënuloo ko explain dafa métti suma yax yi suma nokkee dafa mel ni nit nit a jël oomam bi rek teg ko suma gannaaw gi rek bugg a dama suma yax yi non façon ngi peen boobu laa dee yëg doo mun a nokki Kon doo yow mun a dëgg doo la.
mun a bàyyi waaw mujjee bi nag ma gis ma yëg ne mu ngee mu ngee bugg a wig suma long si nanka nanka nanka nanka ma fiil ko Waaw.
parce que maa ngi réalise ne every hour rek ni ma doon nokkee mënatumaa nokkee noonu maa ngi am problème a nokki so li ma doon def mooy dama dee commencé di exercise suma longs yi su ma nokkee ci kaw ba ci kanam ma bàyyi waat mu mu mu wàcca ma nokki waat forcé ko su ma ko defee ñetti yoon nag damaa saxata saxata saxat ba wàccu waaye saxaat boobu noonu tamit docteur bi daf ma ne loolu baax na ci yow parce que mu ngi laa dimbale sa long si di di di di ubbeeku saxaat bi ngaa saxaat noonu it helps so mu ne ma li ngaa def noonu baax na kon keep doing it ba pare na ma continuer di naan lot of water parce que ndox mi mooy moisture sa sa sa sa baat bi coronavirus bi dafa bugg a proof mi wow pour mu mun a survive bugut mu tooy moo dafa bugg a mu wow ndax mu mun a survive léegi bi ma waxee loolu ma ne tamit ma dem ci kër gi nag jël ndox ndox paxal ko ba mu baax ma sëgga ci steam boobu noonu steam bu tànga bi ma di ko nokki di ŋaang muy dugg si suma buróom bi ba suma bakkeen bi waaye dama réalise ne loolu tam su ma ko defee rek dama dee am relief ma ne ah kon this is working ma teglante ko nag di ko defal suma famille waa kër gi yëpp waaw dañoo jël ndox léeg-léeg ñu jël xorom poole waaw jël xorom poole def ko ci bàyyi ko ba mu baax ñu sëgga ci naan naan ubbi suñ gémmiñ ubbi sa gémmiñ gi muy duga su ko defee muy mun a mooy parce que docteur bi wax na ma ne bugut pour mu dry so loolu yëpp ñu commencé di ko def pour mun a dimbale sun bopp waaye li tax Waaw, li yow tax kon ma ne yow nit ñi de yow- need to know what is happening
waaw yow dajoon nga dëgg ma ne d'après li nga am li nga li nga li nga survive ñaari yoon nga am ko ka- corona Ah, léegi naka naka la sa relation mel ak sa jabar naka la sa relation mel ak sa liggéeyukaay naka la sa relation mel ak suñu borom bi
waaw laaj nga question bu ama ama am solo parce que to be honest with you waaw Waaw.
man suma xarit yi ma wàlla wax dëgg di foofu foofu tam fo that's a good point parce que bi ma demee lopitaan dañ wax ne ma da nga am corona suma xarit suma xarit yi ma suma xarit yi ma nekkaloon yëpp dama leen kool ma ne leen ma ne leen eh, dama dem lopitaan test waaye dañ ma ne da nga am corona parce que dafa tombé ba si tobaski fekk demaguma test suma jabar ne ma bul toog si kër gi yow kenn nañ dem ñun dañ dee def saa yu tobaski jotee ñu dajaloo benn place ma ne ko ah feebar ba pare dem ci nit ñi tamit gën a lu ma mu ne ma déedéet waaye bul toog si kër gi yow kenn nañ dem so ma àndaa ñoom ñu dem waaye bi ma ko yëgee képp koo xam ne yaa ngi woon si programme bi kool naa la ne la demal nga test waaye luckily ninety percent of ñi fa nekkoon yëpp jëloon nañ vaccine bi so ñoom li ci ëpp they were safe only few people ñi nga xam ne jotuñu woon a jël vaccine bi rek ñoom ñoo feebar bi ma leen ko waxee ne leen dem leen test dañ ma ne anyway ñun ñun suma ñu ngi feebar sax ba pare ma ne leen kon jarul sax test yéen corona ngeen am I can tell you now ne corona bi waala naa leen ko ñi nga xam ne kay feebar jot naa leen ko waala bu njëkka wala boor bi te yëguma ko boobu moo tëj suma boppa bi te saa yu ma ko xalaatee dama dee tiit parce que li ñoo wax ne balaa ngaa xam ne balaa ngaa waat ne musuma rey nit ñu ne xaaral ba yomal xiyaam nga soog a am parce que you never know waaw olof yi dañ jeex loolu balaa ngaa ekkati sa loxo waat ne musuma rey nit ñu ne xaaral ba nga taxaw ci kanam suñu borom soo demee ñu ne la gi nga ñeneen bu juróom benn taxaw nii ñëpp yaa leen wàll feebar bi ñu dee nooy def ak looy wax ay yow loolu su ma ko xalaatee dama dee tiit torop daf ma dee indil ay dama dee jégalu bu baax dama dee ñaan yàlla sant ko ba pare di tuub su fekkee ne ñàkk xam bi wala su ma sàggante yóbbee na ba ma jox ko keneen parce que xam nga li ci métti da nga gis maire boo xam ne mu ngi toog néegam demut dikkut di def li ko war yëpp yow nga jël virus ba jëw fekk ko ne ko maire maam na nga def jël ci kaasam bi de naan teg wala ñu jox la ataaya nga ne furux delloo kaas ba su ko defee ña doon ataaya ñépp nga wàlla leen feebar bi ñibbi sa kër gi te xam nga ñun africain ni ñoo ataaya wala ñun ñun africain instead of nga raxas ko ndox mu tànga déedéet da ngaa yàlla leen rek xeeliwaat kaas bi jox keneen su ko defee kooku naan moom itam nga jël kaas bi xeeliwaat keneen instantly rek mun ngaa wàlla thirty to forty people within one day easy ñi nga xam ne nag mag lañ ñu ngi am ay problèmes yi xëj na diabetes wala high blood ak yooyu already ñu ngi am other symptômes corona bi bu ñëwee dafaa yomba xam nga tey màgget mu dem ba ba sonn na feebar ba nga xam ne amatul kàttan bu ko fa Balla Gaye fekkee fi mu nekk ni benn wayaas la koy def coronavirus noonu la mel bu la duggee fekka bu la duggee ci sa yaram fekk yow yeneen feebar yi yaa ngee côté côté ak ñoom moom bu ñëwee moom daf laa faxas in no time léegi nag mag mi nga xam ne moom mu ngi moytu loolu nga ñëw indil ko loolu loolu yokk na ci suma digganteeg suma borom wax dëgg yokk na ci suma digganteeg suma suma jabar léeg-léeg ma tooñee ko loolu ma ne ko da nga foog xaw ma ne yaa ngi ma ragal ba tey waaye moom itamit ba mu jëlee nag sala soog a xelam soog a daal ma ne ko léegi am nañ bi mu ne ma yaa ma ko wàlla ma ne ko waaye sant yàlla deewuloo ñun ñaar alhamdulilah waaye waxee rek mu ne ma mënoon soo teeloon a su ma soo teeloon a dem mënoon nga ñëw séef lii yëpp yaa ñu ko yóbbee mënoon ngaa teel a dem testé waaye boobu yëpp maa ngeen nax suma boppa rek ne du corona léeg-léeg suñu ma ne corona ma ne ñaanal ma jàmm de dimbale leen ma corona fekk obviously corona la waaye mënoon na mënoon naa teel a dem séef suma boppa séef nit ñi waaye ñun ñun wi dama leen ko dee wax suma xarit di nekk Gambie ak suma mbokk yi ma ne leen gis nga koo fi dégg mu naan naka la ko Sénégal yi dee Ismaila dama dama grippe xaw ma ma ne grippe amatu fi parce que corona la fi mu ne feebar yëpp daw nañ fi mu nekk feebar yëpp làqu nañ corona fi nekk ku fi feebarati corona nga am man maa leen ko dee wax si yeneen feebar yi jël nañ ko te taxaw ne ko ponkal mi ñëw na nag su ma yaram bee teg dama soja dama nokki
is seen famille yooyu yëpp benn famille lé waaw ma ne xam nga li ñoo ne ku doon laajte faali ngoya ngi yeneen feebar yi bi corona ñëwee dañ dellu gannaaw nag ne waaw kay ponkal maa ngi fi mu nekk nii moom moo fi ne moom corona ay grippe ak ay soj Afrique ñu bare ngee feebar naan dama soj ba wér te fekk wàlla nañ ko ay nit yi nit yi nit ba ñooñu a deeca te ñoom yëguñ ne corona lañ am di doxi seen soxla soo waxee ñu ne man ku awma corona ñaanal ma jàmm waaye ragalante bi ñu ni neen bari na fi mu nekk te I mean it's okay am nga corona I mean feebar la li bon mooy nga bañ koo teel a xam li ma advice nit ñi daal mooy boo yëgee loo understandu demal lopitaan bul nax sa boppa naan socc la rek lii du dara déedéet demal nga test parce que symptôme si bokkewut suma xarit bi ma ko wàlla nii moom daf doon doxi soxlaam man man tuuti mu rey ma moom ni ma sonalee sonalee wut ko noonu xaw ma ndax li ma ko amoon sa first time second time bi moo tax wala si suma système yaram bi la moo tax waaye ku nekk ak ni la dee attaqué
dëgg la waaw am na ñoo xam ne daf leen a tëddal bañ sonna am na ñoo xam ne daf leen di rey am na ñoo xam ne daal socc rek la ñoo am nii rek di mel ni kuy ñandu nii rek fekk corona la léegi yow ku boo demee nag wàlla ko nit ñi ci biti problème la laa jox suma wàll suma man suma wàll wàlle liggéey liggéeykaay comme que suma boppa lay liggéeyal bi ma feebaree state bi every day ñu call ma state of North Carolina dinañ ko seet tex call ma seet naka laa def ne ma sa quarantine bi gannaaw ëllëg laa jeex te ëllëg laa jeex jeex na tey soo su la neexee mun ngaa génn liggéey waaye si génn gi yëpp meeg soo ne nga jël sa précaution si del sol sa masque del may nit ñi space moytu daal parce que fi mu nekk nii even the quarantine bi jeex na minute ne virus bi jeex na si yow you can still transmit it to other people so nga moytu bul ko jox kenn nga moytu bul ko bul ko wàlla kenn te ñu continuer di sol suñ masque yi li nga xam ne dama ko dee wax toujours mooy yàlla du la defal li nga munut te daa Mariam saa yu nekk nga gis ñu génnee benn ñaan ne waaw lii xalifa bee ko binda mu ne ku ko xool corona bi doo ko am man bépp benn bu mus a génn xool naa ko ba xulli ko te dóor na ma ñaari yoon bépp ñaan buñ fi génnee xool naa ko ba ba xulli ko ba sàppali ko te taxut dóor na ma ñaari yoon dafa am loo xam ne ay caaxaan la gis nga non non yàlla yàlla dafa am loo xam ne du la ko defal mu ne li nga mun du ma la ko defal yàlla da ngaa def li nga mun ba jeexal li si des nga soog koo ñaan mu dimbale la masque indi lañ la masque yi solal jox nañ la jeli laalal soo amut soxla wàññil sa tànk nga toog sa kër yooyu yëpp boo ko defee ba pare nag nga tàllal yàlla loxo ne ko nag def naa li ma war yëpp léegi mu dimbale ma waaye yow doo sol ma fu ñu la ootee nga dem yaa ngi ci soirée yaa ngi ci programme yi ba pare këyit buñ indi nga xool jàllale foog ne pare nga ci corona bi buñ nax suñ bopp loolu loolu mënul laa sowee
déedéet am na léeg-léeg ñu may dégg ñu ne corona vaccine bi waaw ñu ne vaccine bi dafa gaaw li ma leen dee tontu li ma li may tontu ñuy wax loolu rek lenn la tey boo amee njaboot boo xam ne ñu ngi dee benn benn ngir xiif yàlla dimbale la nga fu koti koti ba am benn poti dege am sa tamaate lu ko teg tamaate njamba togg sa maafe ci trente minutes pour sa njaboot gi bañ a dee ak xiif keneen toog fale naan tiga dege gi ñorut wala maafe bi dafa gaaw yëgut li xew vaccine bi ñëwul dañ ko indi emergency vaccine la emergency vaccine la ñi ko ñi ko defar they were running against time they were running against time amuñ woon time yi toog one year di xaar vaccine nit ñaa ngee dee so they have to come up with loo xam ne dina mën a dimbale nit ñi bañ mën a xeex di batul whilst they keep processing looloo tax soo seetloo tey Johnson and Johnson bi biñ ko njëkkee defar da nit ñu bari dañ doon am ay blood clot seventy percent la pass woon waaye dañ continuer di ko study di ko research ba léegi hundred percent dafa mel ni comme yeneen ninety five boog lay wax dafa mel ni comme Pfizer bi ak Moderna bi ñoom ñëpp noonu la mel léegi waaye as time goes on ñu ngi study di ko gën a jànga soo ñiy wax naan vaccine bi dafa gaaw billahi ku xiif ba bugg a bugg a dee doo koy tegal maafe muy lekk naan la gerte waroon nga koo gën a teg maafe bi ñorul wala gerte gi des moom na am lu mu def ci biiram bi.
yow da ngay ñëwaat yow da ngay ñëwaat ndax Germaine mooy dugg si non yow foog ñu continuer waat woo wax gi. sa diggante waaw li ma gën a bëgg nga nga gën ma koo waxal. mooy sa digganteeg suñu borom sa digganteeg sa dëkkandoor ak sa digganteeg sa liggéey ak ñi nga xam ne. comme ni ko Mody Ba waxee xam nga ne wàll nga leen loolu foog ñu ñëw pour deuxième partie bi incha allah mbay jërëjëf di la di la ñaanal wér gu yaram ci sa wax léegi waaw dëgg la
bu réeree sax wallaahi dëgg la bu kenn dugg bu kenn génn naam.
yow da nga dem ba àllaaxira fekk bunt yi tëj ñu delloo la.
waaw barke rasulaay ci ci bunt ci gi nga xool garab yi nekkoon ci bunt bi laal la nga amu gars yi xëcc may bañ ñuy puus ba mujjee bi coow li bari suñ borom ne may delloo leen kii waay coow li bari na ma ne ko ñëwuma mu mu far ne delloo leen ko loolu moo tax ba ma ñëwee nag du wax a yéen na ñëpp laal seen jël sol seen masque bu fa kenn dem foofu neexut a neexut de. yaru te yaakam tere neexu de ay lay waaw
Mody Ba Mody Ba du dem Mody Ba Mody Ba du dem Mody Ba Mody Ba xam naa ne Mody Ba rek ak wax su jàkkaarloo moom Mody Ba di nit ñi dina ko dégg wallaay li mu wax dëgg na de damaa dem ba ci bunta bi ñu wàññi ma de barke Nabil Moustapha wax na dëgg de laay laay
Mara Seck moo fi ne la it's not your time
waaw ne ne ma it's not your time ga coow li rek suñu borom coow lee ko soof mu ne kookuy coow lan la ñu ne dafa bañ na du ñëw mu ne delloo leen ko ma ne ko waaw kay waay jërëjëf waaw amoo morom ku baax nga
jërëjëf yàlla ku baax la jërëjëf waaw jërëjëf yow tamit amoo morom.
jërë ngeen jëf waay yàlla Non, ko fi yow- yàlla gaaw yow- génne yàlla ko fi yàlla gaaw Ojo bi nga bugg a def.
génne ma ne ojo bi nga bugg a def pour yónnee ko Gambia dañuy contacter Waaw.
Modibo su ko defee mu Waaw.
jàppale ñu nga nga defal ñu nga def benn audio yónnee ko Gambia ndax ba Ok.
Gambia ba say gëmuñu ko xam naa ne rek ne dañuy bàyyi tata Cheikh men dugg su ko defee yow di nga Dëgg la.
dellu si waat man dinañ dinañ waxtaan ak Modibo seet nga defaat ngeen beneen audio yónnee ko Banjul baax na jërëjëf Mbaye baax na jërëjëf Mbaye.
inchaallah baax na waaw jërëjëf kooku moo waay.
doon wàcce Ok.
nga xam ne demoon na ba jege affaire ba mu mu mu mu- mu sës ci bunt bi ne dematul kooku la ñu ngi koy jël jaajëfal
yéen a ngi déglu allo dakar point com